ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core x ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne boole ci du ñu ànd ak ma bu leen di aar Crosscall ci kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. da ngay jox nit ki ba bu ëllëgee mu toog di xaaraat azaka ñëwaat mu ngir mu mën a fajaat soxlaam déedéet l'islam doxewul noonu lislaam daa bëgg ku lekk azaka ñaari yoon ñetteelu at ga ngay joxe asaka association boobu nag ñuy wax alxikma wala xikma ñoom ci anam googu lañ koy lañ koy doxale maanaam dañu fexe ba identifier ñi nga xamante ne si soxla nañu azaka war na leen dimbali ñu taxawu leen ba bu ëllëgee ñooñee da leen gis yow mi génne woon azaka ñoom da nga leen di gis ñoom it ñuy xëy di génne woon azaka ndax dana leen leen teg ci aw yoon jox leen lu am lu am solo loo xam ne dinañ ci mën a def ab départ waaye du caage ni nit ki day dajale xaalisam rek génne ko ku ñëw mu jox la junni mbaa mu jox la ñaari junni nga lekk ko baa nga dépensé ko ba mu ëllëg nga toog di xaaraat lislaam waxul ni nanu génnee noonu azaka Omar ibnu Abdul Aziz doon nañ wax ni moom mooy juróomeelu xulafa u rachidin bi yàlla dogalee mu ñëw doon amirul muminin ci Euh, dawla amawiya li mu njëkk a def mooy fexe ba xeex li ñuy tuddee pauvreté mooy ñàkk mu tàmbale ko nag ci boppam ak njabooti boppam soxnaam si nga xam ni doomu buur la woon euh, doon ne woon ci baayam ay or yu baree bari bari yu baree bari ak ay maamam bi mu ñëwee dafa nangu loolu lépp ni ko nag lii nga doon donne ci say maam na nga xam ni alalu nit ñi la woon sa maam xeex ak ñoom nangu ko waaye moomu ko kon dañ koy delloowaat ci baytu maalil muslimin ñu jël ko natteeg ci génn ci azaka joxe ko ñi ko yoyoo ba mu ko defee nit ñi am nañu ko ci mere ci mbokkam waaye ban dawalee ñaari at xam na ni lim nekkoon mooy li woon yoon maanaam ci boppam la ko tàmbalee ak njabootam loolu nag message bu foor la ci képp koo xam ne yaa ngi jiite rawatina sax nga jiite am réew mbaa am gox ci lépp loo xam yaa ngi koy defar nga tàmbalee ko sa bopp ak sa njaboot ci noonu la def ba dajale alal ju baree bari nga xam ne dem na ba baytu maalil muslimin mu li ca nekkoon ci alal moo ëppoon budget état bi muy daw dawla amawiya xamoon ne dem na ba ba ku ñàkk amatul ca ca dëkk ba daan nañ wóor ci monde islamique kun jox azaka waaye du ñu gis kun ko jox dañ ko daan mujj di ko def ay pepp di ko jox giléem yi mbaa ñi nga xamante ne si bokkuñu sax ñoom ak diine di ko yóbbante mu doon ay ndimbal ci ñoom kon loolu tëralin la woo xam ni kenn ku ci nekk war na cee jàngee lu baree bari alhamdulilah am na réew yoo xam ne nag wax dëgg yàlla taxaw nañ ci ba gis ci njariñ lu baree bari bari suñu ci doon jox exemple réew mu mel ni Malaisie wala réew mu mel ni Kuwait ba ci Jordanie gi gis na ni ñoom azaka taxaw nañ ci taxawaay boo xam ni société bi ñoo ko organiser seen bopp ay kuréel yu mel ni kuréel yi ma fi tuddoon taxaw informer nit ñi nit ñi nangoo dem ca ñoom gis leen waxtaan ak ñoom xamal leen ni ñun dey suñu alal nangam la toll ñu bëggan caa génne asaka jox leen ko yéen ngeen dugal ci anam yi ñu ko dugale ñooñu tey jii bu dee réew mu mel ni Malaisie asaka dajale woon na lu ëpp budget état bi xam nga ni loolu kon jéggi na jéggi na jéggi na fuuf ndax état ku ne xam na ni budget mu ngi koy jëlee ci ay impôt ak i taxe yoo xam ne nit ñi ñoo koy joxe waaye azaka bu demee ba ëpp budget état kooku kon xam nga ni lislaam teg na foofu tëralin goo xam ni ngir xeex ci wàllu wàllu wàllu pauvreté la bu fekkee ci réew mu mel ni euh, imarat muy les arab les émirats arabes unis ñooñu tamit demoon na ba mujj gi euh, képp koo xam ne gàddu nga nationalité dëkk boobu mënutoo lekk azaka ndax fexe nañ ba ba xeex li jëm ci wàllu pauvreté te ñu ngi ko jaarale fenn fudul ci azaka rek lañ ko jaarale dem na it ba mutuel de santé yi nga xam ni nit bu amee ordinance mu war nu mu nu mu mën a toll azaka moo koy jënd nu mu mën a toll nga xam ne amatul tiit ngir dem hôpital wala amatul tiitaange ngir jënd euh, ordinance wala dara waaye azaka ji moo taxaw ngir taxawal ko ci lu mel noonu àgg na sax ba ci nit ki nga xam ne da liggéey ba liggéeyam yàqu mu soxlawaat départ capital boo xam ni ci lay tax mu mën a jaaraat azaka moo koy jëlaat joxaat ko capital bu ëpp ba mu amoon mu jaare fa continuer di liggéey ba mu jigéen moom it muy joxe azaka maanaam mécanisme yooyu la lislaam teg ngir xeex wàllu wàllu wàllu wàllu pauvreté te loolu nag bu nu xoolee suñu réew mii da nga xam ni euh, am nan ko te mën nan ko it ndax azaka mën na fee liggéey loo xam ni budget état dana ko ful ay yooni yooni yooni yoon waaye dafa laaj organisation ak it aussi information ak tamit nit ñi di dem di seet ci kuréel yi nga xamante ne si ñoom ñoo seytu wàllu woowe ndax nag azaka du yow mi nga xamante ne si yaa yor alal ji yaa ko war di génnee di ko séddale nu la neexee déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko wax ni ko xuz min amwalihim kon kon kon imam bi wala kii sartoo loolu moo war a dem ci moom ni ko kat nangam nga war a génnee azaka mën na ko bañ a xam sax capitalu xaalisam waaye mën na ko ko jàngal xamal ko ni ko daal nangam su ko amee nangam moo ciy génnee ci xaalis pourcentage bi daal 2,5 pour cent la ci nga war ko génnee azaka sax dafa war ci jigéen ji nga xam ni dafa yor ay takkaay yoo xam ne dafa jéggi dayoo maanaam mu am ci ay or lu baree bari loo xam ni euh, wér na ni lii moom nekkatul rek wàllu takk waaye bis bu soxla woon xaalis it da koy jaay jëfandikoo ko azaka su boobaa day war ci ci or boobee saa bu matee quatre-vingt-cinq gramme or war nañ caa génne nangam ci pourcentage loo xam ni boroom xam-xam yi ñi yor ci wàll woowee yor nañ ko euh, dinañ ci tudd ñenn rek tey ci mel ni xikma ku fa demoon ku mel ni gisoon al imam sëriñ xadim Moustapha Abdourahman Lo ak ku mel ni Cheikh Mouhamed Bachir Faye ñu mel noonu ñu ngi yor euh, mbir moomee di ci di ci taxaw di ci liggéey liggéey bu am solo boo xam ni ngir jàppale jullit ñi ak tamit taxawu euh, njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu azaka ndax it ku xam na ni réew mi euh, wàllu woowu xaw na fee xaw na fee sooxe lool lool nit ñi ni nu ni nu fonkee julli euh, fonkee ko des na ci fonki ni azaka te yàlla subhanahu wa wax naa ni fu mu tuddee julli taxawal julli taxaw joxe azaka la ci teg aqimu salaata wa atu zakat yuqimuuna salaata wa yutuuna kon ñaar yooyu danoo lëkkaloo ànd aboubacarin siddiq bokk na ci xeex bi nga xam ni xeex na ko ak ñi lànkoon bañ a joxe azaka bii ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa faatoo génne àddina ñoom ñi danoo lànkoon ni duñu génne azaka waaye mu woo Omar ni ko ñii dey dinaa rayanteeg ñoom Omar ibnu Xataab ni ko ana nan ngay rayanteeg koo xam ni mi ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nan ngay rayante koo xam ni bu waxtu julli jotee dina yëkkati ay am wax allahu akbar di rukoo ak sujjóot mu ni ko waaye azaka dafa bokk ci ponk yi képp koo xam ne lank nga koo joxe danaa xeex ak yow ba keneen nga koy joxe noonu la ko Omar waxee ni ko sadaxta yow day li nga wax dëgg la kon nag ñu ànd cee yow mu xeex ak ñoom ba ñooñu commencé joxe azaka ndax it ne yonent bi sallallahu da koo waxoon umirtu an uqaatila naasa yàlla dafa ma digal ma xeex ak nit ñi rayanteeg ñoom ba kenn ñuy gëm yàlla di taxawal julli di joxe azaka kon azaka képp koo xamante ne si joxewu ko lislaam day sàkku nag ñu xeex ak yow bu laajee sax rayante ak yow dañ koo war a def ci ki nga xam ne dafa lànk ni du génnee azaka ci noonu nag lislaam tëral na juróom-ñetti nit ñoo xam ni ñoom ñoo yayoo azaka ji juróom-ñett yooyu nag li ma ko waxee amaana nit ki nekk ci wàllu alalam mën naa bañ a xam ñooña ñooy ñan waaye bu ko yóbbee ci kuréel gi nga xam ñooy saytu azaka ndax bu dee ci réew yi lislaam yi ñoom état mu ngi leen di jàppale ci ñu xool nan la ñuy tëralee pour laaj wàllu woowee waaye comme nag ñun dañoo yor ay état yoo xam ne dafa am li tuddee séparation ak ñoom ak diine ji maanaam pouvoir bi ak religion bi danoo xaw a séparé wu état du dugg ci wàllu diine loolu nag jullit ñi kon ñoom ñoo war a jëlal seen bopp responsabilité taxawal wàllu woowee di ko di ko di ko doxal ñooñu juróom-ñett lan yàlla subhanahu wa taala ci njëkk a tudd mooy lil fuqara faqir nag euh, ñi làkk arab dañ koo firee ni mooy ñi nga xam ni daal danoo ñàkk amuñu Euh, mënuñoo liggéey mënuñoo tamit daan seen doole ci dara waaye ñàkk am am na dal ak ñàkk goo xamante ne si euh, nen na ci ñoom ñooña nee na bu ñuy dimbali buñ leen fàtte mu ni nag wal masaa kiin miskin nag mooy ki nga xam ne moom wax dëgg yàlla mi ngi liggéey waaye nag la muy am taxul mu doy ko ñooña nag ñu nga tegtaloo ci aaya bi nekk suratul kahfi ci wa amma safinatu fa kaanat li kiin nga xam ni gaal googu kon ay miskin ñoo ko moom doon ci liggéey waaye nag benn gaal lu war a mat fukk wala ñaar fukki miskin bokk ko loolu xam nga ni kon kenn ku ci nekk lam cay am taxul mu mu koom taxul mu bari waaye nag ñoom ña ngay liggéey waaye kiy liggéey masalan di gagné deux cent mille par weer wala cent cinquante mille par mois war a def location fay ci soixante quinze mille scolarisation des enfants soog a ñëw dépense am wàllu soxnaam xam nga ne kooku soo ko génnee ci li muy am par weer kooku euh, dana dana dana sonn lool kooku nag soo ko xoolee ba jàpp ni wattu lekk azaka su boobaa yaa ngi koy teggi te yaa ngi koy yaa ngi koy sonal kon kooku ci ñi ñu war a jox la bokk loolu nag amaana yow miy joxee xëy na doo ko mën a gis waaye kuréel yi nga xamante ne si ñoom xam nañ ko identifier ñooñu boo fa indee sa azaka danañ ko mën a jox ñooñee ba bu ëllëgee ka daan fayeeku fanweeri junni wala ñaar fukki junni juróom su lekkee azaka ñaari at ñetteel ba moom ci boppam na ngay génnee moom lay génnee bokk na ci ñi ko war a lekk it mooy ñay liggéey ca wàllu woowee ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen lépp seen yitte yëpp di liggéey ci wàllu asaka di ci di ci sonn di xool ñi ko war a lekk ak it di dem ca ña koy joxe jël ko ca ñoom di ko séddale ci anam gi nga xamante ne si moom la moom la laaj xam ngeen ni Eh, zakat house bi fi nekkoon muy te mu nekkoon Kuwait amoon nañu baree bare ci waa Sénégal ak ñu nekkul sénégalais sax daan liggéey ci ci ci ci ci ci association boobu muy zakat house nga xam ne leen daan fay lu baree bari bari te loolu lépp alal jooju du état moo leen koy jox du organisation non gouvernementale yi ñoo leen koy jox waaye nag jullit ñi ñoo koy génne muy loo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo leen ko sant ñoo ñooñu dañ cey dañ koy jëfandikoo ak ñi nga xam pour dalal seenum xel moom lañ tuddee al muallafati qulubuhum mooy ñi nga xam ne ñu ngi soog a dugg ci lislaam amaana dugg nañ ci lislaam seeni mbokk beddi nañ leen faaleetuñ leen que leen daan dimbali ci seen famille duñu leen dimbali dana àgg dana àgg sax ci euh, liggéey ba nga daan liggéey ka ko moom nga bokkoon ak moom diine xëy nga tey nga génn ca amaana mën na laa dàq su boobaa nag lislaam day taxaw moom it wane boppam euh, wane ak pànkam nag ci côté boobu jàppale kooku bu baax a baax a baax ba balam doon am fële du du ko am ba xëy na sax euh, mu mën a soññ ñeneen ñoo xamante ne si ñanga pour xamal leen ni leen kay diine ji day diine la joo xam ni ah moom day ni mu lay dalalee dal nam xel ndax jàppale ga fa nekk day musuma koo gis nee na ñooña bokk na ci ñi nga war jox azaka wa fi riqaab muy nga xamante ne si ay jaam lan loolu nag amatut waaye ci jamono yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaam dafa am yonent bi bi mu ñëwee lislaam bi mu ñëwee terewu ko ndax boo ko tere woon mën naa yàq seeni alal waaye dafa teg ay yoon yoo xam ni ngir bëgg xeex ak njaam mooy ni mu ko tegee mooy képp koo xam ni def nga benn bàkkaaru sàngam mu ni la bàkkaar boobu day boo bëggee mu rot mooy da ngay goreel ak jaam képp koo xam ni nag def nga njuumte ci koor wala njuumte ci nangam mu ni la loolu boo ko bëggee faj da ngay goreel ak jaam àgg sax ba ni eh, azaka it mën naa génn ngir ñu man ko jox ab jaam mu fayal boppam ndax xam nga lislaam may na jaam mu liggéey ba am lu mu jëndee boppam ci ab sangam mën naa ñëw ci sangam ni ko man kat ñaata laay jotee sam bopp mu ni ko nangam nga koy jotee su boobaa lislaam may na jaam boobee mu daan dooleem ba am nangam ñëw joxe ko daal di goreel boppam loolu gis nañ ko ci diine ji ci saxaaba yu baree bari yoo xam ni noonu la ñu jotee seen bopp bokk na ci it wal xaarimiina mooy ñi nga xam ne dañoo amee bor bor bu leen sonal lool waxuñu nag bor boo xam ne nit ki daf ko leboon euh, dugal ko ci ay caaxaan wala ci euh, am po ba loola topp ko ñooñu waxuñu ko waaye bor boo xam ne nit kat am daf ko leb ngir faje doomam wala faje soxnaam wala faju moom ci boppam baa mu leb ko ngir yóbbu ko kër ga ngir lu nu dunde dem ba mujj gi ay bor sonal ko lool mën naa àgg sax ba ci nit ki dudul nangooti dem jàkka ja ngir ay bor yoo xam ne sonal na ko su boobaa it ñooña war nanoo xam kooko ba yëkkati alal ju baree bari jox ko mu mën a faj fay ay borom ba ci tax egg ci nit daal di mën a tàmbali liggéey liggéey boo xamante ne si dana ko dana ko jariñ allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa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 bokk na ci ñooña mooy ci ñi nga xamante ne si war nañoo lekk azaka ji mooy wa fi sabilillah wa fi sabilillah nag yaatu na yaatu goo xam ni mooy lu nekk ci yoonu yàlla sabilillah nag ba ca jiitu mooy aljihaad mooy tey bu fekkonte ni attaqué nañ lislaam ngir bëgg koo faagaagal wala bëgg ko nërmeel imaam bi joxe ndigal ni jihaad jot na kat teg ko ci sart yi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa leerale su boobaa ñooña génn ngir jihaad yi day war na leen a jox azaka joo xam ne moom la ñuy dimbali ko ci seen xeex boobee ngir lislaam mën a delluwaat palaasam wabni sabil mooy koo xam ne mi ngi woon ci yoon donte sax dëkkam ku fa oomle la ku fa am la waaye dem na ci tukki dog jot ndog jot ko ba amatul loo xamante ne si moom la moom la ko war a joxe ibnu sabil googu nag euh, man de maa ngi ko gëmee ci ab tukki boo xam ni mas naa koo def ci dëkk bu ñuy wax màkkatal mukarrama daje woon fa koo xam ni ab ministre de la république la ci sunu réew mi la bokk yàlla dogal mu ngi yoroon carte boo xam ne da koy dugal ci banque yi wala carte gàpp pour mën a génnee xaalis mu sonn lool nag dugal na waaye amoon na daal problème ba munta génne alal te it yorut dara loo xamante ne si mën na ko sax duggee ci ab restaurant ngir war koo mën a jënde ci booba eh, amoon na tuuti lu ñu yor ci leen ko génnee jox ko ngir mu mën a faj ay soxlaam comme xëy nañu ñoo ko gën a miin dëkk baa ak yu demee noonu ba kero muy mën a di am nu mën a jotee alalam kon xam nga ni kon lislaam vision am rëy na lu mel noonu rek ci ngay gëmee ni kon ni ibnu sabil donte dafa omle ci dëkkam ba mu nekk kooko war na koo mën a génne ci azaka ji jox ko yàlla nag nee na loolu moom farata joo xam ni man maa ko tegal sama bopp te yàlla moo xam lépp إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم léegi nag mu am tëkku yoo xam ne nag lislaam daf ko wax ci ki nga xam ne dafa lànk nag ni du génne azaka xam nga fële leeral na ñiy génne azaka li leen yàlla di defal ëllëg ak fii ci àddina waaye bokk na tamit li leen yàlla di wan fii ci àddina laata ñuy dem alaxira bokk na ca lim leen di wan ci àddina mooy xeex ak ñoom xeex ak ñoom ak ñoom ba kere ñu koy génne ndax borom bi subhanahu wa taala dafa wax ni fa in taabu wa aatu zakat fa xallu sabilahum inna allaha gafurun rahim xeex leen ak ñoom reyante leen ak ñoom ba nu nangoo taxawal julli di joxe azaka suñ ko tàmbalee def nag kon nag bu yowoon ngeen bàyyi leen ndax yàlla ku mën a jéggale la te ku am yërmande la wax naa xadis bi nga xam ne moom la Seydina Abu Bakar waxoon ni dinaa xeex ak képp koo xam ne bëgg ngaa taqale bayna salaati wa zakat te nu xam ne azaka àq la joo xam ni dañ koo war a génne jox ko ñi ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xadis boo xam ni abdullah ibn omar moo ko nettali nee na am na bis yonent bi fekk ñu toog mu muhaajirun yépp toog mu wax leen ni leen kaay ma wax leen juróomi mbir yoo xam ne day yàlla bu mu leen dal yàlla na leen ump waaye nag boo leen sàgganee ba juróomi mbir yooyu day ngeen jëf ko dana am juróom yi tar leen yu leen dal mu ni ba ca njëkk mooy jëf lu bon ba noppi di ko fesal maanaam siiwal ak mbon nee na loolu day bis boo leen ko defee yàlla dina wàcce ci yéen am mbas moo xam ni kenn du ko mën a faj te li muy faaga ci yéen dana bari boole ko xiif gu tar goo xam ne nit dina dem ba du am lu mu lekk nee na na ko defee woon ci ñi leen jiitu woon nu mu ko raw la koy def ci yéen ba mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi mooy boo leen bàyyiwul dey saa boo leen jaayanteeg nit ñi ak njënd ngeen di ko natt nattin goo xam ne du mat wala di ko pesé pase boo xam ne du mat nee na yàlla dina leen booleeg buur boo xam ne day dana leen sonnal lool njiit moo xam ne loo leen amul lekk ko te boole ko di leen fitnaal nee na bis boo leen bàyyee tamit bañ a joxe asaka dana fexe ba téye tawam ci asamaan wala boog su tawee day bàyyi may kese ñooy jariñoo ca la fay jóge te loolu xam nga ni léeg-léeg nga dégg ci ay yenn gox ñu bay ba àggal waaye bu noppee am ngoo la am boo xam ne bàyyi ma yi ñoo koy jëfandikoo waaye nit ña moom duñ ci am dara nee na ñeenteel ba mooy li ngeen digle woon suñu borom su fekkee doo leen ko def danaa jële ay noon ca ca biti ñoo xam bokku leen ak ñoom réew ñuy jël seeni seeni meññeef di ko yóbbu loolu nag ku xool ci suñu réew mi xam ni Occident bi mu ñuy bëgg a rey ci lépp loo xamante ne si lu nu am la ñu jël ko yóbbu ko bitim réew nee na ba ci juróomeel mooy bu fekkente ni seeni njiit nanguwunoo àtteewoo ci téere yàlla bi danaa def dundin gu metti ci yéen woo xamante ni si di ngeen jaaxle bëgg mu faju te du faju kon loolu day wane rek ni ñàkk joxe azaka moom musiba la azaka nag yàlla dafa bëgg buñ koy joxee mu sell lenn bañ ca bokk loo xam ne lu ko yàq la moo tax alal ji nit ki denc ci banque su fekkente ni riba da caa bokk loola kenn du ko génnee azaka ndax yàlla subhanahu wa taala dafa wax ni na ngeen bàyyi riba ak lépp lu aju ci loole te xam ne képp koo xam ne yaa ngi lekk riba wala nga koy jëfandikoo déclaré nga guerre sunu borom yàlla nag bàkkaar bu ne mën nga koo def bañ ko déclarer guerre ba mu des lekk riba moom riba moom képp ku koy lekk mooy attaqué nga borom bi guerre tax yàlla moom ku ko ku ko ku ci xeex yaakaar na yow rek yow yaay mujje daanu yaa ayuha alladina amanu taqu llaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum muminin fa in lam tafaalu fa'danu bi xarbin min allahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tazlimuuna wa laa tuzlamuun bokk na ci fitna yi nga xamante ne si ñàkk génne azaka moom lay waral ëllëg yàlla mi ngi ñuy misaal wala boog dañu nettali ci alquranul karim nee na gaa yi nga xamante ne si day dañuy denc alal di denc oor di denc xaalis te duñ ci génne alal duñ ci génne azaka ci yoonu sunu borom subhanahu taala yow yonent bi ñooñu day bëggal leen leeral la leen ni leen bis dina ñëw boo xam ni alal jooju day dinaa ko def betteex boo xamante ne si day day ruy ma di ko ñaas ci seeni kanam di ko ñaas ci seeni wet di ko ñaas ci seeni ginnaaw boole ko di leen naqaral naan leen lii mooy li ngeen dencoon te bañ cee génnee azaka kon nag mos leen seenu denc walladina yaknizuuna wal walfidda wala yunfiquunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi azaabin alim yowma yuxma alayha fi naari jahannama fa tukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa zuhuuruhum haada maa kanaztum li anfusikum fa duuqu maa kuntum taknizuun yàlla dañu nettaliwaat ba tey nii bul jàpp mukk ni ñi nga xamante ne si dañuy denc alal ji ma leen jox te xam ne man maa leen ko séddale ndax ma naa koo jox keneen waaye nag ma jox leen ko bul jàpp ni day ñooña li ñuy def lu baax la ci ñoom xamal leen leen lu bon la ñuy def te nañu xam ne alal ji ci man lay mujje ndax man yàlla mi leen ko joxoon maa koy jëlaat walaa yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadlih huwa xayran lahum bal huwa charrun lahum sa yutawaquuna maa baxilu bihi yowma alqiyaama walillahi miraasu alsamawati wal ard bima taamaluuna xabiir bokk na ci azaka li nga xamante ne si moom lay def doomu adama ci ñàkk koo génnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ci benn xadis nee ëllëg day ñi nga xamante ne si danoo yor ak jur moom ci ak jur la ko misaale woon nee na yàlla subhaanahu wa taala day jël jur googee teg ko bu fekkente ni ay giléem la ñu yeew ko ci benn barab giléem ya di daw di ko fël di walbatikuwaat di ko fël di walbatikuwaat di ko fël bu dee ay nag la noonu lañ koy def di ko mbëkk di ko romb di ko dañ ba ilaa yawmil qiyaamati ñu naan ko lii di la mbëkk ko romb di la dañ day mooy alal ji nga dencoon te lànk ni bañ caa génne asaka kon loolu it dafa bokk ci e, mbugal yi nga xam ni koo xamante ne si du ko def loolu moom moo ko ciy fekk zakat wax na ni mbir la moo xam ne bu ko yàlla bu ko nit ki génnee dafa lebal sunu borom subhanahu wa taala te ku lebal yàlla bu ëllëgee di ko fa fekk yàlla fay la ko yàlla dafa wax ni wa aqimu salaata wa aatu zakat mooy li ñu doon wax ci njalbeen gi nii azaka moom fu koy fu yàlla tuddee taxawale leen julli teg na ca wet ga ni dee leen joxe azaka mu ni wa aqridu llaha qardan xasanan lebal leen yàlla lu rafet loolu moom mooy azaka ji buñ koy génnee bul xool li gën a yées ci sa alal nga di ko génnee waaye xoolal li digg doomu moo tax boroom xam-xam yi wax ni bu fekkente ni or la buñ ko calculer ñu xool ni kat gramme bi mi ngi jar nangami kara dix-huit wala vingt wala vingt et un nga xool bi nekk ci digg bi ñu xayma ci loolay génnee ko azaka waaye bul xool bi gën a néew gën a suufee nga génnee ko azaka nu su boobaa du gënal islaam moo tax yàlla ne wa aqridu llaha qardan xasanan mu teg ci nag ni lépp loo leen defal seen bopp ëllëg boo leen ñëwee fii ci man di ngeen ko fi fekk ma ful ko nag fay leen ci loo xamante ne si dina kawe seen njort boole ko jéggal leen ndax man kat ku mën a jéggale la wa maa tuqaddimuu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda allah huwa xayran wa azama ajran wastaxfirullah inna allaha gafurun rahim génne azaka dafa bokk ci liy farataal ak luy defar alalu doomu aadama ji tey ci misaal bu fekkonte ni nit ki dafa am ab immeuble boo xam ne daf koo teg ngir di ko luye luyees boobu mu cay génne loola moom mooy la muy génne ci biir loolu lay xayma bu ëllëgee génnee ci azaka waaye du caagéen ni bâtiment bi ci boppam la ñuy natt ngir génnee ko azaka déedéet aslu boobu du génnee azaka naka noonu tam bu fekkoon oto la boo xam ne da koy liggéeyee du caagéen ni oto ba moom mooy génnee azaka waaye la muy amee ci biir oto ba di ko dajale loolu su fekkante loolu moom mooy li nga xamante si moom lay génnee azaka azaka nag dafa bokk ci mécanisme yi nga xam ni dafay xeex ak ñàkk ci ab société ndax société boo xamee dees ñu ko génne société boobu dafay bëri ak noonoo seen biir bëggante du fa am soppante it du fa am moo tax yàlla subhanahu wa taala waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko na waxtaan ak say saxaaba ak mbooleem jullit ñi wax leen ni leen li leen yàlla jox mën na ko jox ku nekk ndax yàlla subhanahu wa dafa wax ni moom mooy ci boppam moo tànn wërsëg jox ko ko neex wallahu faddala baadakum ala baadin fi risq yàlla moo xool sàmba jox ko lu baree bari bari xool demba jox ko lu néew xool ma xujja xañ ko ba desetu dara waaye nag mu xam ne nag ka mu jox sàmba moomee yor na wërsëgu ma xujja nay génne ci alal joojee di ko ko di ko ko sedd ndax borom bi subhaanahu wa taala moo ko wax wa fi amwaalihim xaqun lissaaili wal mahrum kii yalwaan di laaj dafa am àq ci sa alal kon nag na nga ko ko jox wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu